sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéeyal. wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sakur wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sakur. a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim.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 sillaali ilal jannaati baaxin tawassaat wa kulli wa maali zaana xaamin mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taaliba Cheikh Njaay Gànna sëriñ Tuuba qaadala wallaahu maxtaara bi mu sañcee dëkk bi xaal la fa njëkk a bay fii armeel yi nekk xaal joojee ba mu ñoree sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaarala hoo da koo xaaj ñaari xaaj jox góor ñi seen wàll ne leen fas leen ci yéene mucc ci gunge maanaam ànd ak kenn ci yéefar yu góor yi jëm sawara jox jigéen ñi seen wàll ne leen fas leen ci yéene mucc ci gunge yéefar yu jigéen yi jëm sawara wér na sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaaral doxoo nag fonkoon na xaal daana ko jëmbat itam fi muy jàppe bi mu nekkee njaareem ba tey njëkk gi mu njëkk bay xaal ci dëkk bi ñun murit war nañoo xam ne baax na lool ci kër walla dëkk bu ñuy bëgg sañfi am na ñuy wax ne ñamu àjjana la waaye yaakaar naa lool ne mboolem meññet yi nekk fii am na foofee ca àjjana wér na wallahu aalam وارزق به تسليمي واسلكم بها sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal